waajal nga gaay te waajoo yaa ko doy kiimaan suural nga gaay te suuroo yaa ko doy kiimaan seeral nga gaay te seeroo yaa ko doy kiimaan réewal nga gaay te réewoo yaa ko doy kiimaan feesal nga gaay te xaajoo yaa ko doy kiimaan lotal nga gaay te lottoo yaa ko doy kiimaan jaqal nga gaayi te jaqu yaaka doy kiimaan tiital nga gaayi te tiitoo yaaka doy kiimaan reeloo nga gaayi te réewoo yaaka doy kiimaan diisal nga gaayi te diisoo yaaka doy kiimaan féexal nga gaayi te seexoo yaaka doy kiimaan defar nga gaayi te yàqu yaaka doy kiimaan suuxal nga gaa yi te suuxoo yaa ka doy kiimaan jeexal nga gaa yi te jeexoo yaa ka doy kiimaan tooyal nga gaa te tooyoo yaa ka doy nga yàlla jaamam yaa ka doy nga gaa fi deewoon yaa ka reggal nga gaa fi xiifoon yaa ka noyal nga gaayi fi jàggoon yaaka doy kiimaan xamal nga gaayi fi réeroon yaaka doy kiimaan setal nga gaayi fi taqoon yaaka doy kiimaan noppal nga gaayi fi sonnoon yaaka kiimaan wéral nga gaayi fi woppan yaaka kiimaan sigal nga gaayi fi sëggoon yaaka kiimaan duyal nga gaayi duyul woon yaaka kiimaan doyal nga gaa yi doyul woon yaaka doy kiimaan réyal nga gaa yi réyul woon yaaka doy kiimaan mosal nga gaa yi musul woon yaaka doy kiimaan safal nga gaa yi saful woon yaaka doy kiimaan amal nga gaa amul woon yaaka doy kiimaan yow yaa matal képp nit koo xam ni manki na woon te nëbb lépp lu bon moo tax nga doy kiimaan yaa judd aw ngir mu jub maa jub di waaxu ba tey te mat la bi jàdd bis yow rekk tamat ilimaan waykat yi way na ba wéy waxkat yi wax na ba wéy te yëngu woo géesu woo yow yaanu doy kiimaan defkat yi def na ba wéy kuy xoole xoole ba wéy kuy waaru waaru ba wéy yow yaanu doy kiimaan jommal nga naa féq ak yéefar akub jullitit koo diglu dégg mu naa kii moonu doy kiimaan dundal nga diine te dóoroo xuppewoo fitaloo yow rekk yaa masa def lii yaan doy kiimaan lotal nga xel yi te mennum xel du jot fa nga yam lun deeti wax ndare xuuxuu kii ka doy kiimaan nun topp rekk te nu war tey soxlawoo sa ndigal buñ soxlawoo xam fa ngay jëm yaanu doy kiimaan yaa topp yàlla ba am jaaraama yow nelawal sa ngom ba duutu yolom moo ngi lay xaaraan sunuy yoxoo ngi le feesal koo ci leer yiw jógal musal mu te may nuy may yu fiy baawaan lorag lu koy niru bun fiirooti nun ba banuy xëytaab bi firdaw si féqal fan yi ban raamaan sun mboole noo ngi di tàllal may nu may gunu xaj yaa nuy yërëm te ku dul yow mii reetaan te kenn mënul dara kenn yaakaaru lit ku la moy talal nu sab loxo ban doy loola yow mbaaxaan yëngal ni may nganu may gub doy na jaama xalam yow ban ba waande dañuy màndee kamar akanaam doo jeele doo xaajalit doo déyle bay nasalit wutal nu ak dex ba sum xel dootu daji yaa doylu yow te ku am ak doylu yaa ko jox doylul nu wëllis di rootaane ka wàqi sayaan sàkkal nu kër yu yaatoo yaatu tey jaga-jag ban dëkke sëf di la yët yow mii ak ay xaabaan ba bis bu nekk nu fab ab junni jox la nga yor te boole koo ki sa bëgg teppaŋ di moo ki mbalaan ba bis bu nekk nu fab ab junni jox la nga yor te boole koo ki sa bëg tepp ak ndimoo ki malaan ak suukar ak yàpp ak déem ak daqaar a i buy ak sump ak laalo ak kuur ak tamee ki bagaan ak yomb ak naajo ak mboq ak xoram su la doy ak lépp ngir yaanu fiy jàllee dem diiwaan sarax nu geesu nu bis geesum ngërëm bu nu bég njegam danoo bonitam noo ngi fi yow di wayaan ay wax du jee waande nun wax te wax du gudd ba jàllit yaaka doy la kem lanu man te wax du doy kiimaan ku tëppatul yàlla it bum deeti jóg di ko moy mooy yàlla rëy na te dee dem naariit wéeful ku toppatul yàlla it bum ti jóg di ko moy mu yàlla rëy na te dee dem naar it wéyekul ku man di julleeke wér daa kay joxey alalam na jóg te def ko te bum tax muy yebit ku mënul ku jàng-jàng ba xam boolem arab yi nu gis na yàlla te bum tax muy xasit ku xamul yàllaa xamal ku fi xam yàllaa amal ku fi am moo sàkk dab yi def yiw sàkk dab yi deful yàllaa fi teg dab yi moo tax lépp ndab lu nu gis nan koy teral ngir boroomam te buñ ko bonal foo gis ku bon nee ko yal nan yàlla boole yërëm xamal ni nit amewul boppam de kon mu jubal ab lar na muy dofe bay réyloo ka xee bi kemam kuy xee bu nit xamagul kuy réy it réyagul ka rëy du rëylu ka am xam-xam du xeebi ka moom kon ni dafay saf waaju am xam nga xam ni dafay saf waaju xam te xamul yàllaa jagoo rëy te waajuy rëy mu dal di alag saytaane xam na ni rëy baaxul nde moo ko bonal xam-xam lu tax ti xam jag-jag lu tax ti la xay xay lu taxati la xay sol sol lu taxati la sol rëy rëy lu taxati la rëy am am lu taxati la am saf saf lu taxati la saf jël jël lu taxati la jël yàllaa ngi yor yëfam ak yëppam di seetu nitam te waxtu wuy gis ka koy soobit mu jàpp ko fal ka yàlla jox fal ga kooke moo di kay mataxam te fal ga jox na ko tey jii ban ba mii nekkal wallaahi noo texe nun gaayam yi noo fi gënit moo tee sant te fab suñ njorti rafetal kuy tee nu sant te sunu waaj yi di waaj a gën du def lu bon du ko seetaanit du wax lu wërul ak dex lafum gis lu bon day dal di fam ni tërëx ku bon na jóg dex dex rekk a koy suturaal tilim juréy sëfulug dex kum ko jàppe mu set ngir dex dafay jàpp santaare kisam di labal suuxal na mboolem lu dee faa wax ni lii rafetul ngir jëmmi yàlla ji kii di sang nan ko jëfal fenkal na jantum ngëneel ak diine dootu lëndëm yombal na xaalis te yombal lépp lës jëfewul ku nekk gën baayam ak maamam te gën ndeyam it te gën na jaayam ak kii maatam te ko waral ku nekk gën baayam ak maamam te gën ndeyam it te gën na jaayam ak kii maasam te moo ko waral ku santulit man danaa jóg sant waa ji nu may ndax gor su dul sant xiiwal soosa gor gu réwul lii nu am bu nu dolleetul wanit dana doy te waxtu wun toll muy dollee kanaa doyagul te lum fasoo dinu teetee kay yaram ak a nax ba xëy nu boole dugal firdew si ay naxewul talam fasoo dinu teetee kay yërëm ak a nax ba nu boole dugal firdew si ay naxewul alhamdulillahi teenoo nopplooti te jóg ak cant sas la wuréy nan jekki tuuti te dal firdew si duy naxte koo gis moo ko tee nelawit yal nan ko am te sunuy fan gudd gudd teful moo waarakat bi la yow mi waare waaru nga ndax waaral sa bopp ba waaroo waaru jógu waare moo waarakat bi la yow mi waare waaru nga ndax waaral sa bopp ba waaroo waaru jógu waare ku ragg day rag lu bay wér doo rawut ku mu faj ku jinne jàpp ko muy faj doo ko gis maare dof na muy faje ay dof loola mën fi la lu nit di kannatu bay faj loo ko daf mbaare kuy say na muy bëse kuy say am xelam du ko daj kuy say dafay soxla wér tey takki téere ku rafle day wut lu muy sàngoo baam ko bu wér muy door a jóg di wutal gaayam ya ay yéere bul jàpp sér yi rafet jox gaa yi des ni mulung na nit di jàppee séram fab sànni tey gaari nan waaru tey waare tey xam nag ni leenu laxas ngir bukki lu mën a wiirit mujj dem dëri nan sànni lépp lu bon tey sànni loo ko nu gis mboolem lu bon lu mu yor lii nuy fegal naari nan sànni lépp lu bon tey sànni loo ko nu gis mboolem lu bon lu mu yor lii nuy fegal naari nan génn jéeri te jungum soobu géeji ndigal tëri ki gaayile bun dëkkee tunum jéeri te jéeri day taxa bekkoorit ku bëgg na tax suturlu day soobu dëkkub jéeri tey wiiri te jéeri day taxa bekkoorit ku bëgg na tax suturlu day soobu dëkkub jéeri tey wiiri sëriñ bi nag fekki buy jàlleeti moo ko fi am nan dal tàbbi balaa jóg jëm fa muy teeri ku dof ba jortu ni mën naa xoo si géej ak i dex te tab moo di kay réeri pëkee di fekk doxub ay at mu dox ko fi saa te lëf du ko dog yit ngir dafay fiire te Bamba weeru ngërëm ak barke rekk la weeru ngërëm fekk naa nan wax ni taafeere taafeere taafeere kum jàmm ngi nanu um nun gaa yi gëm ku gëmul nay lekk kay xaare taafeere taafeere kumtëg jàmm ngi nanu um nun gaa yi gëm ku gëmul nay lekk kay xaari te tabbi àjjana jëkku dee la nuy doge it firdawsi it ñu ngi nuy nég war nanoo maare yowmal xiyaam yi danuy booloo fi ker arasit tey jéggi mel ni melex nii lan xaloo jaare شكر وبسر ورضوان لنا أبدا لكوننا مع سيق خير أخيار أبداه رب الورى فينا برحمته وقام فينا جوادا جود أمتار لولاه لم يك فينا سوء هدى وتقى وسوء سرور وسوء فوز بأنوار هو الخديم وما كل الخديم كسى فكم نبي كريم دون مختار هو الخديم وما كل الخديم كسا فكم نبي كريم دون مختار يا رب سل على مخدومه وعلى آل وذهب وأمناء وأخيار يا رب سل على مخدومه وعلى آل وذهب وأمناء وأخيار bu kenn ñëw ku dul koonu tànnal bu wér bu la fi lu dul loonu tànnal bu wér bu kenn ñëw ku dul koonu tànnal bu wér bu la fi lu dul loonu tànnal bu wér ka ngay tànn moo ñàkk lor am njariñ la ngay tànn moo am njariñ ñàkk lor ka ngay tànn gën yow la ngay tànn gën la ngay tànn yàlla nay lanuy tànn far dinaa muslu loo xam ni tan moo ko yow dinaa wut ci yow cër bu gën bépp cër dinaa jéem a def sab murit buy saral saxal beeka def loo ma tànnal bu bir dinaa jéem def waaju sellu murit ju am ngor ju dul fen du war bu dox bu dox bu dox pisum diggal yow lu dul cant ak mbég mu tar na bég na bég ci nun di def nag ci nun luy waral nuy sawar na xol di seddit ci nun sépp saa nu def lar bu lay way di sol say sagar te saa daloo may nu faw was cagar di suufee ka sol sab sagar moonu war sunu cant nay ñëw ci yow saa su jot ñu taqoo sa ndol lem di farloo ko danoo bëgg dem moom te def ay lafañ te yaa yor saxaarit saax mës nga war te noo ngiy dagaanug jub sax ci yow akub tontu faw wag ndam gëm gu wér xarit dëgg yeewul ba yeewuy jariñ te bul nit ba yeewuy yam ay nelaw xarit bëgg yeewul ba yeewuy jariñ te bul nit ba yeewuy yam ay nelaw sa kër gi nga nekk ak murit yi law du ñu xëy fab la bis suuli nga def nag fi samkan ni com ak sa jëf te dootoo gisit nen mag mbaate ndaw na ngay nekk fii yow te sam xel na fee ku jëppul xelam teg ko fee ñàkku yiw bàyyil saw tey kër gi mu jëf te fam nag sa xel teg ca kër gee te daw li ngay mujje moo tee nga koo jëkke far dangay mujj daw bis te doo daw baraw dabal léegi aw yiw te daw léegi lor lu wéy dab ko fëccil lu dul xol bu waw te mbay tax nawet lay jëriñ gaaya bay bayal rekk waa ji balaa noor a ñëw te kuy dox di sàggan ba far jot mbayam dootu faj gàcce ngir dootu taw nawet moo di dunyaa mbayay jëf ju dugub jee di sag fay bu sottee nga naw ku bay yow na ngay bay ku dul bay nga bay te bul geesu an bul tayee kay taxaw bayil xëy di waxtaana kay tëddilal ku koy def te tuuboo ko sag fay gelaw dangay sàmm ay bëy yu am laf te sob sa cër yee di say bëy moyul ay nelaw na ngay di jëf jëf ju saf saf sëriñ akay wax way laa nga xëy jàpp yow sëriñ baa ngi nii tey di tàllal loxoom jógal jox ko ngir lee delloo loxoom sëriñ baa ngi nii tey di tàllal loxoom jógal jox ko ngir lee delloo loxoom ndi jooram bi gën bépp ndey joora ngi ku jóg léegi feesal ko gën say moroom su xam ni bii yaa ko fab jox ko sax da koy soppe ay junni delloo la moom kilee mat diggaale kilee mat xarit kilee mat sëriñ nag te mat nag boroom ku fab cànk jox ko mu jox lay dërëm ku fab sàq jox ko mu jox lay njuróom ku fab junni jox ko mu jox lay ngërëm te seexal la kaaru sëriñ bee kawoom ku koy lebal sa bopp sa kër mu dal lay fayew nit ak yi kër nga moom liggéeyal joxe jur te aw na ndigal ngirum gaa yi baaxoo na ngi aw ko doom te bul bëgg lëf lu dul sab sëriñ te saa soo bëggee lëf mu dal lay ba moom lu dul sëriñ dawal loola yow te wut sëriñ boo bëggee ngën jikoom ko am sab sëriñ am lu sam xel dëjul murit buy ami soxla moo luy soloom ku làqul ngërëm du wéy yéggagul na muy kan na soo bay sefee wut ngoroom wutal yàlla yàllaa gëni soxna kët ku am yàlla am soxna am ay goroom ku daf bay texee dëkk fi deq ba muy xëy ni wëqët du ànd ak sagoom wutil géej ak i dex te bul dëpp yow ngirub deq yeggul ba say bokk siim danga mar te say bokk mar wu rëy amal it te bul def ku gëtiim te say bokk ngay wax guddut keenu duy ba feesal ku daa wax sunu bon ni xiim say bokk ngay wax bu dikkeenu duy ba feesal ku daa wax sunu bon ni la lay doy te doy say ndey ak say xarit balaa am ngaraw say mag say moroom na ngay gon te kay xëy di waaxoo kéwéy ba xam yàlla am yàlla kon ngay karim ndabal dëgg laa ngi ñi muut ak ngërëm ku bëgg yi ngërëm na tibb ak loxoom ndabal dëgg laa ngi ñi muut ak ngërëm ku bëgg yi ngërëm na tibb ak loxoom xamaa say ayib te fara say ayib te lii rekk di xam lu dul lii ak xam ku xam ak bonam te dindig bonam kilee xam boroomam te am nag boroomam ku xam ay dërëm te am ay dërëm kilee xam lu wér ndax te moo xam te moo am ku xam ay dërëm te ñàkk ay dërëm gileeg xam ku xam lu muy faj boroomam xam ak am ñu ngi dem jëfee xam ba dee balaa kenn na am xam balaa kenn na xam am ku xam bon bu wér te xam yiw bu wér bàyyik bon defu yiw kilee sell xam-xam balaa kenn man lii defub sang moo ku man lii lu muy jóg di weesooti boppam balaa kenn man lii defub sang moo ku man lii na muy jóg di weesooti boppam xabal yow sa mbir jox ko ngën ji sëriñ mu wommat layet man foofu laayam ndaxam ban ba yaajar di sonnal ba dee lu dul jóg liggéeyal la xaw nay araam ndaxam ban ba yaajar di sonnal ba dee lu dul jóg liggéeyal la xaw nay araam te fas naa la yéenee liggéeyal asal liggéeyum ngërëm bu doy képp ku dul yow yeyoowul liggéeyum ngërëm te maa la wax lii yëgal loolu daam dangaa set setal te jang nag jagal te am nag amal sa jëf mat la jéem te man jéemu maa def sa jëf yi ma gis damay jéema def sab géwal def sa jaam ma jóg nag te way laat ndax ab géwël bu lay way ku jóg dal di feesal jibaam ku lay way du bon ku lay way du ku lay jomba way leem xëy mel ni mbaam ku def sëf géwël dal am ay géwël yu koy dox di way akay topp weem dangay sëq ay may di jox sëb géwël te boo dee mayit sëb géwël doo ko leem dangay sëq ay may di jox sëb géwël te boo dee mayit sëb géwël doo ko leem mayab junne ak mayab tànkayam ci yow mi falang ginaar ak gëléem ginaar ak gëléem ak fas ak gépp jur jëwoo ko jëwoo murit yi diraam te jaaxal nga góor ak jigéen ak mag ndaw ak junne ak njuuma doomaa samaam dangay ndey di baay ak nijaay ak sëriñ bi maam ak xarit te gën leene daam dangaa yar sa bopp te yar képp nit te yaa tax ba kenn dootu wax kenn naam yar ak kersa ak maandu ak not bakkan akub tam nga jiitoo ku jox yàlla njëam ku def tey lu dul jóg te dal dawal ba am say ngërëm ma ngay def araam ku def tey lu dul jóg te dal lay dawal ba am say ngërëm ma ngay def araam lu dul sëriñ bi man ñii sànni naa ko bu wér lu dul sëriñ bii du man koy deet jàpp ko yor te lépp loo xam ni lii daanaa ko jàpp ko yor lu dul sëriñ bi xam naa tey ni ndof la gu man génne naa sama xol bi ay xarit ak i jur wóotal fi ban ba ki gën foppi xarit ak i jur def naa ko ab sang def ko soppe def ko xarit def ko sëriñ def ko baay ndey te yàlla na ma yor jox naa ko saa bopp ak saa lépp yàlla na ma jox boppam te yàlla na ma jox léppam te yorom sama mbir jox naa ko saa bopp ak saa lépp yàlla na ma jox boppam te yàlla na ma jox léppam te yor sama mbir xanaa samay dongo ak saa bopp ak sama kër jébbal ko ngir yàlla moo jaatee munoo fay bor sëriñ bi tey yaa di jaamub yàlla maa di sa bopp foo jëm ma topp la ndax loorot le mbàkke ma for te tey la la sama ruuru gi nag dana wel fi yow du ko jot ngir jot si ruu gi du ngor mboolem ku ngëp ci sëriñ bi mbaa mu ngëp ci kokam yal na xolam sedd mboolem ay mbiram jaga-jag mboolem ku jébbulu yal nay tedd tedd ba dee yóbbaale tedd nga dem firdew si tedd fa nag murit yi yal nañu am ndam làq seeni mébét murit bu jóg fàww yal nay mel ni jant bu jóg sëriñ bi yàlla na fam ñeppam ne tegg ca kaw te yokk leen yi wëggam ak ngëneel ak mbég te yokk nag seeni fan fab seeni jëf rafetal may leeni ndimmal fegal leenu teyeel ak ndog te yàlla na xëpp ku nekk yiw ba ñépp doyal mu dàkku dee gi te seg luy alak te yal na jàppum murit yeesal ko pullu ba ko gis ñeenu bëgg di nun say jébbuloo ka galak te yàlla nay dund muy dundit di ànd di wéy muy digle tey tere muy def tey bayeekale fop te yal na fab suturaa ki jàmm sànge nunu mboolem lu bon sunu digg ak loola yal ko ñag mboolem lu nuy tax a baytam te yàlla na ko fab jébbal mu luy tax nu mer nag loola yàlla na ko fekk te yàlla na far faw gépp far lu dul sunu mbég te may nu dund gu barkeel ak murit yi nu jig te jox nu yiw wu ñu yëg ak yiw kenn yëgul ak lu rëy lu ñu yëg ak lu kenn bañ a yëg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 ayu ci sab xolte bul neenal sa waxtu jëfal loo mën defal loo mënul jéemal te yéene ko yow ku jéemu yiw ak yéene yiw mbiram bonagul sa cër yi nay jëf te saw làmmiñ di wax wax njëgam mënoo wax akay jëf aw yiwit xalamal loo def ci aw yiw lu sew sew ak fayam dana ñëw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 ma ni nga yaay ki tawféex ak tonoo ki ngërëm yaa saytu lépp musal mu yiw musal mu ci lor ma ni nga yaay ki tawféex ak tonoo ki ngërëm yaa saytu lépp musal mu yiw musal mu ci lor musal mu ci réccu faw ak jëf ju ñàkk ngërëm te def mu sab lar bu ñuy ñeen ak ci wet gu ne far noo ngi fexe jaay mbay roofal nu barke bu réy ci mbay mi ak ci sunuy kër ak ci gaa yi nu yor noo ngi fexe jaay mbay bu réy ci mbay mi ak ci sunuy kër ak rooful ci nun xaw roofal say ngërëm ak ndég ci nun te yëkkati bëstul teg ca kaw ba nu war yaa nekk diggante say noon ak sa soppe yi tey teral nga say soppe caw say noon yar bañ sa yaa say tukun waxtu woonee kun sunuy pexe jub ngir yàlla ngir yàlla neetil kun ba mbég ni ba kul bi teg ko ca kaw nun ñépp te ca kaw te dolli nu seexoo yaa fi dàq nga war yaa man nga war dëgg doo daanoo ka jëng nga ka xaw yaa jekk dëgg nga war yow rekk ka def lala war xaral nu baaxati xar baaxey sa mbir defatil ci num lu tax gaa yi biir ak biti ñeenu du bir yaa faj sunuy aajo yaa faj ràgg yépp ñu wér yaa xëy defar sunu mbir yaa gën ci nit ña ko jur yaa tax lu bon ni meles yaa tax njariñ ni jalañ yaa neexal it përe jaajëf noo ngi sant bu wér yaa tax lu bon ni meles yaa tax njariñ ni jalañ yaa neexal it përe noo ngi sant bu wér ma sant Bamba ki xëy sekkil ma dég yi ma jam tegil ma lor yi ma dal fab saami bét ni ma am dafay sant ak may sant it ka ko may mayeeg a koy mayeeg mat nay sant mat di gërëm ku sant yàlla te santul yonenam ba bu wér cantam ga day dellu far ding muy ndaxam koo xam ni sant na it yonen ba cantu gu wér te santulub sëriñam cantam ga mooy na ngërëm moo yónni yonenam ba jox ko ndigal yonen ba it fam ndigal loolee joxub sëriñam sëriñ ba it fam ndigal loolee digal ko ko nag masamte kon yàlla ak yoneen ba ak sëriñam ka ndaw la yabal ak waaja ndaw la yabal ku jéem a xàjjale seeni mbir xamul te du xam sëriñ bi ak yàlla ak yoneen ba seeni ndigal duute yow bu sa xol bi ñax-ñaxee ka gëlam ku topp ban ba di gis yoneen bu mag ba bu wér ku topp yonnen ba it gis jàlla gis ngërëmam kuy topp ban ba di gis yonnen bu mag ba bu wér ku topp yonnen ba it gis yàlla gis ngërëmam ku mooy sëriñ bilee muy yonnen ba faw ku mooy yonnen ba muy yàlla nag far al ku jeeki mooyam man naa yàlla ak yonnen ba cam tugu bir ci ban ba mi gën ku daa xëy julli ak kurusam ngir am na yàlla te am yonen ba am gu rafet maa am ko rafet maa ko lu mën ñu ko am yow ñi di sàkku ngërëm luy wéy di wéy laxasul te sànni àddina mi daa sànk waaju xamul dawal bul geesu boo geesoo mu geesu la kët te kon mu dog la ba dootoo dem te la jël moo daa weram telu tey fas tey sikkim di xatal xolub jullit ba mu naataa mbokk mi ma xatal yàqal na bokk yawan yàqal na bokk yi tey àddina mi ku ko dul daw foo ko gis féragul àddina day naxe tey yooteeke fiire ni ay ba na gaa fi daa xeexeeka daa mboolem ku daa tey jii kooka tàbbi na pax te seeni doom a ngi def fii nag di jooy xul ku jaayi sàq jëndey kolkol sa njëg ga jërul ku jël bakkan jënde kom réewit sa njëg tunawul kuy dund bum fàtte dee nay jëf te jëf lu rafet kon bis bu dee dee malaakay ak sinaa ko bégal lu toom ña ajjana déeful jëf ba jëf lu ko jar te moo na déeful moyit bay mooy lu jar tegu xal mooy yàlla moo mata daw ak topp moo mata wut lee moo di yoonu ndigal lii moo di yoonu musal kuy roy na roy waaju xam tey topp moo mata roy ku roy ku dul loo am kët na sedd sa xol gaa ngir yaa ngi am na ngir mu aw seetal ba xam fa nga jëm bul def ku jóg nga àndal su mboole nam tuubi lam daa mooy diggante jëwëg war ak rambaaj ak dogug bokk ak di wax lu amul na muy bëggante te mel ni doomi baay ak ndey bu nuy xuloo te werantee kay fital bu dafay julli tey wir daaka sàmmi cëram te fonk wëllëre moo jaa ak njulit lu ni mel daanee ka noonee ka ayib naafiq yaa ko fi daa def ngir gëréere mbugal nan jëf te sellal sunuy jëf-jëf ju sella di tax yàllay gërëm aji jëf moo tax nanuy yéwénal kuy jëf lu sellut du am jaajëf du noppul it ku xam lu jar dagu daggoo xam ni deefu la fal xamal ni yàllaa ngi lay ji soo jëm jagalal bul mel ni kuy def lu bon tey fas ni yàlla gisul jaamu te ba ngay ndaw moo la saytu ba tey di wërsëgal ak a faj say aajo ak di teral wéetal ko bul fàtte xiiwal yi mu lay may a may ba xam ni tey jile yaa ngi def boroomi kurél seetal sëriñ bi nga am ak jagle gi mu la jox te Baabakar dëgg santal lii la yàlla defal sëriñ bi fonk la ak doomam yilee ki rakam mool i ku jëf lu ko jar santal ba mel ni géwal donte dama sant kem suuf ak malaaka yi du tax ma jox ban ba mii àqam ndemoo ma mënal ban baa ma yar may ma xam-xam ak alal ju ma lew saa wax ji duy fen man xam naa ni fen dëgganul man rekk maa war a man rekk maa war a dogan ko nag bamba ben tey maa ngi fii na ma dal man rekk maa war a bit man rekk maa war a tëb dogan ko nag bamba ben tey maa ngi fii na ma dal wonaa sunu texe nun gaay ko def sunu mbër teram ni moo texewul nun noo ngi dun dëkk mbër dun def lu dul di ko way tey diw ginnaawam te buy daanit nu dem ko bësal nan jekki gaay yi te saytul mbër sërëm yi lenum yàlla bu nuy soba sobbay jóg ba mbër dinu fel way fi way wile ngir sàkku yi ngërëm ak itam fàggu yi pay yal ko yàlla fàggul moo ngoogu yaa ngoogu mbir yaa ngoogu saytu nunum na lépp jub te bu lëf jibrik def nu ñu lay tax sant ci yow ngay sant faw ci nun na bëlëf tee mu am ñag noo ki ndég bu nu bon lay tee nu la lay sant it bu mu am la koy waral bu mu am tàllal ma sab loxo man na sab xol sab loxoy tàllee jublu ci nun nuy sàkku lépp aka am te yéene lépp aka man yaa tedd yal na mu déggoo ci yow nu juboo amug wér ak wéttal ak doole ku fit ak yaa sotti yal na nu ràbboo àndandoo xaritoo safante soppante biir ak biti faw wu ni gan nu ñëw ni gan gu saf ngay mel ni gan gu saf ngay def mbégum sunu xol nuy def mbégum sa bakkan nu tabbi àjjana biir ak biti tàbbi gu wér te nekk àddina biir ak biti nekk gu gën yaa mag di yal nan fii teew ak yow ak kunu saf ba ñépp wéynu ni ñokket jaari àjjana nun yaa jiitu yal nanu lay santoo ka ci yow di wëgg saw fasa kay ñàddal lu génn nu am yaa sell yal na nu lay bégloo ka bégle ci yow ngay bég di bégle ci nun tey gën ku tooñ akatin nun ñépp noo ngoog biir ak biti def nu ñu gën ñu deefatul bindalu ay mukk fal nu ci kun def nuy murit yu ñu guddal seeni fan wéral seeni yaram boole leen ak yow ba faw ñu gën nga nekk ba dem àjjanay maaree ka noppalu ndax fa lay baneex ak xiiwal ak mébét di daje te googa kër moo di kër goo xam ne fa tuxoo ku bëgg a def lu la sa foofee nga koy defe ji waajjanaa nga fa tey war seeni fas di tëbal ku yeewu buy wari fas foofee la koy ware ji ku yàlla fal foofa dootoo dee ka folliku ji te loo bëggit am ko mbég kay war na kuy falu ji ku tab de àjjana day am aajo tey bég a du noonu kenn nit te doo gis muy xuloo ka wujje xamal ni jukko ju bon ak gaaw a mer du dara lu dul mandar gam ku dul baax ak ku dul texe ji kuy wut ndam ak bayre ak saf gaaya doo ko wute bodante ak xasu nit ab yar nga koy wute ji kalay desal akanaa loo tekki bul ko faje mer ak fayantoo fa bal noo yeg lewet te faje seetal sëriñ bi leen koy noonu yàlla di def te xam ni gis tee ko bis muy wax ni naa fay ji yoneen balay roy nderoytil gaayi ji jamono du làquloo sa ka akay maye ji te moom fii jiite nan koy roy na muy roye kii man xawma waaju royul njiitam lu muy lay ji ku fekk sa soppi jóg jëm penku yow nga ni naa jëm soowu tam ànd yow moomee dangay woru ji ku fekk sa soppi jóg jëm penku yow nga ni naa jëm soowu tan ànd yow moomee dangay wor ji nan ngër yi muy jëfe-jëf tey diglu wax yi mu wax ba gis ko déggu ko xablan man te dem jëfe ji ma wax pilëf loolu dafay leeral diggante murit akub sëriñ ak i maatam ak ku muy gane ji murit bu bëgg digganteem ak sëriñ ba ak diggam ak ku mu gis nay dëddu àddina ji lu yàgg-yàgg bu muy gaaral bu muy wuta xam jublug sëriñ ba bu koy wooyit na daw wuy ji telum ko wax na ni pëcca def ko def gu yëwén te gaawe gaawit ba far taf gaynde guy dabe ji mbirim murit dafa xat ngir juñ ji rekk a ko sos lii aajowul gise ji lii aajanaa gise ji li ëpp naa gise ji li ëpp naa defati li ëpp naa waxati li ëpp naa wane ji li ëpp naa nëbbati li ëpp naa xamati li ëpp naa gisati li ëpp naa foye ji jeexal te bul tay kuy jeexaatu day gas a gas foral te farlu te loo fërkët demal joxe ji koo xam ni jox nga ko say dir bul ko nëbbati la te donte aajana sagru it jógal xar ji bul wax ni man bul wax ni kenn manu ko bul sàkku ak jige ji bul sàkku ak soy ji bul wax ni man bul wax ni kenn mënu ko bul sàkku ak jige ji bul sàkku ak sori ji baatum ndigal fu mu gaawal te daw fori ko ku yéexe topp ndigal doo seeru muy tono ji nëbbal sa merte bu koy wan sëriñ bu ko wan lu dul la koy taxa bég kon lee xëy jote ji loo gis mu sopp ko dal koy wut te boo ko amee yóbbul balaa laatu dal koy jox te bul damu ji xeebal li ngay joxe boo koy naw mu dal la yit sàkkul ngërëm ku ko am loo aajo yàlla faji kuy wut ngërëm lu ko dal nay wéy te ko soxal ku am ngërëm dëgg am ak jur doo jilo ji kuy bay baxaw aka wallee kay watoo defar ba am dugub fàtte bis yooyee mu daa bay ji téereem murit yi yaa ngi leeru ngir mi laa ko tudde sëriñ bi may nu ndimbal ngir yow la dabu ji may nan la suñ bopp may goo xam ni duñ ko nangu nangul mu noppal la nun duñ gaaya lay bay bi fasal nu buñ fasutit yow jox nu buñ amutit moo dag bu lay weesu tey ji waaju muy dagu ji alxaaji yaa le tey fab seeni jur di aje noo dàqaaj waande nun yow mii la nuy ji ajil nu jullilu may nuy ndam layal nu ëllëg tërik buñ gis lu dul ndëg bis ba nuy daje ji juwey waxit def na wax juj xam ko war na ku ne te képp kuy réere wax ji yaa ngi mel ni gone te dëg tëri aka bokk ak moom a kay ti bandoo muy lekk ngay lekk lii kay aw rasax melu ni murit dafay def boppam nib lar te lar du bokk sangam dafay ni gu des aw des la barke ba ne màggal ko fonk ko foo tollooti moo di la gën te boo defee ni léeg doowoo loolu làqu ne waafal ko neexal ko tey wax ndànk wax xumbul te bum la wax la yow mii nga ko nga ni waa jii dangay ji te loo ji loola kat dana sax moo tee nga ji lu rafet tey farlu foo mën a ne féexal ko noppal ko bul koy tàggalee ku fitam sukkal ko raamal ko may ko yar may ko ku ne yoon murit yi la wër seetal ayib yi la wër te ittewoo ak setam boo sàgganee asaru gaayaa ngi lay jayte marhaba bihi foo dégge marhaba ak iskay jógal fagaru bul gis ku lay jeye jey bay tax nga gëm la wax yow rekk a xam sa ayib seetal na ngay defaroo ku rekk yëg ko ku xiifit xam ni lekku la tus bul diglu dof bi la naa yaa regg kom nga loru lekkal te naani ba sab xiif ak samar demandoo te yóbbu jox kala naa xiifoo kanaa la maroo ku neeti bay te bayul ngir fas ni am na dugub kookaa di dof ba te kookee kenn du gis mu maru ku ràbbi sàqam te gi te dëggu lugub te solluul sàq yooyee kooka rekk a waru ku xam sa bopp ba fab say sàq sollu ko nag say sàq jomp te doo ruujee ka dox di faru kusulluwul xotti sàqam xiifa koy xalaray bul dof ba doy looti yow ay jëmm wëlli boo kër-këreetee ba am ay jëmm sàkkaliru kuy dund moo gën ku dee ngir seeni mbir du niro tëru gi dem jafe moo tax dee fi jébbale mbir ba sëriñ rey la dekkal jox laru nga yaru rajaa du fab sa bakkan bii rey ba dootu la lor dekkal sa xol bi ba ngay jandoo ki yëf te yëroo rajaa di fab sa bakkan bii rey ba dootu la lor dekkal sa xol bi ba ngay jandoo ki yëf te yëroo ku lay mënal li le koy def moroom a ka def am na la ngir war na sàllu yàlla kat te wëroo dawal te sàmtu ko soqil ko fasam ba mu set sàkkuy mbëggam kon nga gis say weeri mbëgg di teru ki moo di yàlla ku koy muy yàlla rekk nga muy moo wutu yàlla ku wuutee kiy waxam na beru ku topp kii yàlla ak yonen nga topp bu wér foo fekk waayam ma ngaa ki yëf yi muy bégaroo ku soxla leer ak mbóot ak barke bul waayam dafay yor ay yor ay yiw ba mel ni yoro boole li ki wirdaa ki juddoo ki kurus jox ban ba faj loo ko nag say ràgg ndax te wéroo fital yu rëy nga yor jébbal ko dànn bi yow mu may la yàpp te doo jekki rëbee këtëru laa bu yewwoo dafay jaayu fital du ko yor laa bu yor fitalam day mer ba mujj xaru du yàpp mukk te fu jëm gàddu ak pitalam di gargaree boo ko bëggee nangu muy xataru te boo ko yuuxoo mu bootug ndell tey dawa daw gi ndell lum xalafa teewul loru misaala ngoogu ma jóg man jébbulóoti bu wér ku saw buri bëgg jee fàggul weneenu buru njëbal akuk buuma yem boo yolam alal akub xola koy dëral ba muy defaru sëy bi saa gaay ak saa boppa ngi bu mu des tabal nu gaali ngërëm ban jiitu yow soxaroo yakal nu leer ak mbóot ak barke ak sa ngërëm te daldi nii ba ma xëlluy tax nu tee asaru ma fab ci ay xalimaa kii daate samsati la te dellu fab xalimaa kii daate taggati la man jommi naa waaru naa bay waare ngir li ma gis te kenn du gis li ma gis man mii te jommiwu la bu may dikkee ba ma naa gii may ku xam gu day sëriñ bi dolleeti mag may nag te naa amu la kuy saa xarit mbaate ngay saa mbokk foo mën a jëm dikkal te may ma liggéeyu cant mbaa ma bala ma yaa ngi may wër te may gooseeru sas law rëy ku dikk bayle ma boolotee ma bayle si la kuy sàkku lëf teemoo doo jekki doo selawit te boo amee nag ba tax laa jekki yow amu la ab dag bu dee dagu buuram nag ba am ngërëmam nay sant tey dagu ngir ab dag dafay xarala te dag bu làqee ngërëm bay tax ndagam ga di ngërëm la day dal di laa aw la daggu xala yow donte buura la jox réewam ma laxasul kon foofu toll mu fab ndolem lu rëy jëme la bul geesu bis lu ko moy bul sàkku bis lu ko moy ngir wut na mboolem lu dee faafoy tukkat xaare la lan koy liggéeyal yi muy réy réy dalaa xala fay ba fay ga sotti mu may lañ may gu réy gëne la nan gaa yi bamba yi noo ngi wéy ba àgg bu wér te lépp lu nara te yeggit mu jóg fase la nun gaa yi bamba yi noo ngi wéy ba àgg bu wér te lépp lu naratee yeggit nu jóg fase la julleeka màgg ku kàbbaru sànni say yoxo nag jàppul yarul def ca sam xel mépp jàkk xalam ngir yaa ngi dee yaale dëggan mag ma bind aras tegal sa xel mi ci moom ak ay mbiram ba mu dem doo jóg di wëndeelu boo dee julli bul ba sa xel muy jóg di wëndeelu moom it nag na yam te nga yam koo xam ni kii yaa ngi dee yàlla mii fi barab waroo ko faa bàyyi dem man xaw ma foo xala jëm yàllaa di lépp ku nekk ak lépp nag fi barab lu ci yow jóge fay jëm fenn fenn te xam rusal mu gis la nga won kom ndodd ngir lu ko moy bul seeruloo bëgg mbaaloo bañ ba dëddu ko cam moo gën sa bopp ci yow moo gën sa lépp ci yow bul raasi lëf lu ko moy raasal gëma ngërëmam boo kàbbaree rekk dëddu lépp lëf ba ba ngay sëlmal ni mëll ca peeyub kay gënee kay defal la ngay man te yéene jub di jéem a jubal koo seeru def la mu man rekkay la war ci mbiram yaboo ma ne jeexalu sas loola moo di sandam njegam mënu ko dalal tey seen yërmande gëm boo kàbbaree lu sa xel nii daj lu dul sa boroom ak mooy la boo sëlmalee yow jéggulul sa boroom moo ëpp moy te mënoo koo topp topp gu wér saxal ci jéggulu biir ak biti yow ki mu moom musanduxum ma fabul jëm kaw li kaw te fexe jot yépp waaju la raw yow mi ba jiitu ko far bul des gannaaw ak daagoo kay taxaw di tawat say nawle yegg nga des lii kenn xamul lu ko jar bakkan bi wékki ko wékku ëpp far gore yow as dafay gore bul def lëf lu ne fi du ngor ku tàmbali jàjji ba nu muy tayeeka taxaw torox na yàqub deram yët ñépp tiis a ki lor ku juddu far daldi dee moo gën ku dund te bon ku xes ba dund la gën muy mbër mu def jëfi mbër wutal lu jaambur ñi ak mboolem sa bokk yi xaj te def ku am njaxlaf yewu jar te xër bul gaaw a xaj mukk yaatul ndax te cër bu ñu xaj ku gaaw a du ko am nooyal lewet te sawar lu nekk nay xaj ci yow wax ni lii ku ko man ku bañ ñu gantu ko day daw ngant xam ko bu wér ku bëgg loo tegee ak alaaxira it ñu nangu kon lu ñu lay teg nangu daala ca war nangul ñu sëf la ku gàntub sëf du am fu sëf du am lu muy sëf lu kuy war faw dee fi ko war yow bàcc ci sab dénk ngi santal te jàpp ko nag moo gën ci yow fopp ak jur gën ci yow ña jur mu ñépp yal nanu am nañ dimmal ak jërëjëf ak cant goo ba àjjana far yàllaa ngi boole nga yépp taawute kat du may kudul ka ko soobit yal na nuy ka ko soob la wax bu nekk a ngi ñaanuk fal bi sonn nag du fal kudul ka ko soobit yal na nuy ka ko soob ku nekk a ngi faj lu aajoom ak loram du fat aajo i kudul ka ko soobit yal na nuy ka ko soob ku nekk ngi fajlu aajoom ak loram te du faj aajo i kudul ka ko soobit yal na nuy ka ko soob koo gis ñu ngi muslu ñàkk ak bon te kat du musal laram budul ba ko soobit yal na nuy ba ko soob ku ne ngi bëgg pexe nit jub te du jubal pexem ku dul ka ko soobit yàlla na muy ka ko soob ku nekk ngiy sàkku am kooman njariñ te du jox ndaxam ku ka ko soobit yàlla na muy ka ko soob ku ne ngi daw bëgg raw mboolem yu bon yi kenn

ku ne ngi dàq mbégam tey ñukku ñukki te kem du jot ku dul ka ko soobit yàlla na nuy ka ko soob naa sant ci téereb cant bii ma jox te wàcce koote ci man alhamdulillahi as ndongaak dogu laa aw ma won fu sa tey sangak dëx dàggalaa alhamdulillahi cantam gu ko sant kat daa jox mu nangu gërëm yal ko jox gu ko gën alhamdulillahi ak cant war na ma man nii nag ci yàlla gu wér yal ko def bu rafet alhamdulillahi man mii damay ku xamee fu wante ñépp a xam tey gën a rëy alhamdulillahi man mii damay ku gisee ful wante ñépp a ma gis tey jii li lee gën a wér alhamdulillahi man damay ku yëg yéeful wante ñépp ma yëg safoo ma faale ma nag alhamdulillahi yal naa defu cant man goo xam ni nee na tërëx cantu ña sant bu wér alhamdulillahi ñañuy gërëm ak a naw yal naa ca jiitu bu wér teraw ca ñay gërëm it set cig tawat jot na biir ak biti yal na sax cig cant set cig tawat alhamdulillaahi nun lii nu yàlla defal jombaate naa ki tawat xeetoowul ak lëf lu alhamdulillaahi nun lii nu yàlla defal jombaate naa ki tawat xeetoowul ak lëf alhamdulillaahi liwéy ci nun yal na dégg njéggal di yërmande faf li nuy jëmit yal na jar alhamdulillahi ñun ñépp yal na nu ànd ak téere bii ba ba ni xëy dugg fir dëw si naa alhamdulillahi bii téere yal na mu barkeem ak yiwam wu mu am toppal njariñ lu mu am alhamdulillahi barkem ñi koy wàcce ñépp yal na wàcc ci nun te barke wàcc ci nun alhamdulillahi barkem yi koy wàcce ñéppit yal na wàcce ci nun te barke wàcc ci nun alhamdulillahi nun ñépp yal na nu koy wàccee ka wàcc lu bon ba wàcc àjjana naa alhamdulillahi murit bu nekkun ci sangam bay liggéey ka daw bi mu alar ba joxeetul lës ku xam la mu doon xaw ma muurit laati xaw ma saadaxiina bu bon seytaane am na ci moomas buntu faw wa ku yoon seytaane yàqu na yàqal ñépp koo mën a gis caes ndigal sa mu daa yor faw nee na ko ñun lislaam a ngi jooy a ñaxtoo ko wax lu ne ndax xalam ngi kenn ëwatul xalam mi yal na nu miin xalam mi yal na nu dundal dundalit sunu xol mu dund dundal ko biir ak biti faj lu mu buum yow yàlla xëppal sëriñ tuubaa ci yërmande kem suuf ak garab yi ci sax ak ñax mi ak ñi la gëm te may ko ci mbég ak xéewal yi màggati kem ñiy dund ñépp ak dee ñépp ak weddi la am te jox ko ci njariñ ak ndoleen ñu baaxati kem malaaka yépp ak araf yépp ak lu xel masa dem yu nee ko ci dab yu fees ak ñam yu neexati kem bu diiw say asamaaw ak wuntiiw yi nga am tamit ku jox ko ci ngën ji yéere faw kem li jar ci mboolem li ñuy jaay ak juróomu kemam jox koy ngërëm ak ci xooru xëy ni jóppati kem téeméeru junni ñu koy dégloo mu def ci xolam jébbal ko ci mucc ak ñoŋ ak raw ak sorikam ñi mucc ñépp ñi muccul ak ñi làq ngërëm jébbal ko ci mucc ak ñoŋ ak raw ak sorikam ñi mucc ñépp ñi muccul ak ñi làq ngërëm jébbal ko ci kër yu dootul ràpp mukkati kem li dee ci xippee ka xef lépp ak li dee ci xalam jébbal ko ci falaki mbooloo yu dem dayo li def yëngoo ko dal ak lii safak li texam ko ci dexi meew ak kaw sarakem li dee fi jëf ak li ñuy wax ak li nee xeram noppal ko neexal ko may ko yaatu may ko ci yow loo demuwul gën àjjanaa yiwam jàppal sa jëmm ak sa lépp ñépp jox ko mu jël te jox mu jëmmam ja ak léppam mu jël di ndégam bégal ko def ko sa mbég bég loonu def mu mbégam muy bég ci yéen ak ci nun muy bég ci yéen ak a gëm wërsëg njariñ barke mbooloo gàmmu daa la ko am màggal ko yow def ca loo man lépp gan la gu baax ab xaalis ak yàpp ñam mat na cee jox nit taay nelaw mat na cee daw ci guddi bu baax rusal ni xapp sa bët bi yow ci gàmmu gu ñëw tab jant finkul ba dox aslaf ngirum juba baax demal te fedd li gëm muñ coona muñ nelawit tawut payu yàlla ak yonen ba boo gën a baax muslul lu lay nara gàllankoor a kay kalakal ba màggaloo gàmm màggal gàmm war na ku baax moomal bakkan boo ko moomee moomi cam sa ki mbég bakkan faw moo gën moomi njëndi yu baax waajal ba jag gàmmu gaa ngi ñëw na fekk nga jag ba jën di gàtt ak yëf yoo xam ni dana baax ak cant war na màggal gàmmu ngir duñu gis tey ak ëllëg ndare seenu cant rekk gu baax gàmmoo di weeru ngërëm gàmmoo di weeru njëriñ gàmmoo di weeru ngënee lañ dig defara ko bu baax yal naa di gàmm gu jub yal naa di gàmm gu saf yal na àddi gàmm gu rëy goo xam ni sax na te baax